salaamaaleykum gaa yi salaamaaleykum gars yi monsieur Ousmane ko génn na démb ci guddi bàyyi nañ ko ba mu dem léegi dama bëgg waxtaan ak yéen nag sénégalais yi est que c'est normal nga ne nit ki ah dafa violé maanaam daa katt aji saar nga ne nit ki day woote appel à instruction nga ne nit ki day woote trouble à l'ordre nga ne nit ki daa rey ay xale nga nit ki daa fenal Mame ñaa Niang amandan ko deux cent millions ah nit ki ah, lii la ak lii ak lii ak ba mu jaral leen ngeen jël ko dugal ko ci kasa bi torturer ko yàq taawam yàggal ko fa ci ay loo xamante nii daal mu jëwul fen loolu day mel ne Ousmane Sonko deful dara te mu sa def dara lépp dañ ko teg ci candidature am rek mu bañ nekk candidat pour mu bañ a jor mi mais yàlla boo waxee ne day nekk candidat day nekk candidat loolu moom kenn mënu ci dara yàlla bu dee Ousmane Sonko day bokk ci élection yi day bokk kenn mënu ci dara yàlla bu dee Ousmane Sonko jël réew mi day jël réew mi kenn mënu ci dara mais lima ma métti mooy bu fekkoon fii la ni mujje mais ñu bàyyi woon ko mu nekk ci activité am mën a bokk ci candidat yi Sénégal am jàmm kenn du dee mor du am ah ñu bàyyi leen ñu nekk ci jàmm jàmm am Sénégal réew mi avancé waaye jàpp nit ki ne daa sàcc jàpp nit ki ne day wot tur bu aaroon daa rey ay nit ah daa war a joxe deux cent millions daa kat aji saar ci loo xamante si nii teguñu ko fenn bu kenn ñëw fii naan ma aadama wax naa daa fayeekul wala weer wi dañ kaa fayul wala ma ki da kaa joxul déedéet man su may ànd ak nit ci moom damay ànd ak moom ci dëgg temps bi ñu ko pertal ci prison ba bàyyi ko fa mënoon naa nekk ci ay njabootam nekk ci ay activité am bu doon nii lay mujje ci dara yàq nañ temps perte ndoo nañ ko yàq nañ ñoom seen temps xale yi dee nañ police yi dee nañ gaañu nañ ci dara ci ree ma nga wat këram alhamdulillah léegi nan ko bàyyi mu bokk ci élection yi yàlla loolu la dogal nanu ko bàyyi mu bokk ci élection yi bu demee ba admissier ko mu génnee ko ah man nañ koo bàyyi mu bokk ci liste électorale yi déposé waat bokkaat ci ci ci sondage yi ne euh, euh, bokk ci élection yi ku ko jël affaire yi moom amul ragal ku gañe ñu xam ne gañe nga nan ko bàyyi mu bokk loolu moom mooy yoon léegi loolu moom mooy yoon parce que li ma gis nii man damay ànd nit ki damay ànd ak moom ci dëgg président Macky Sall rek laa bëgg Amadou Ba laay jàppale mais lii man lu ma ci dara waaw lu ma ci dara pour man nit ki buñ ko jàppee dafa def buñ ko téyee da am lu mu def buñ yàqee taawam daa am lu mu def buñ ko yàggalee ci koso bi torture ko dafa am lu mu def lu ko jar mais lii day wane ne Ousmane ko deful dara te mu sa def dara lépp ci xaj ko mu bañ a nekk rek moo moo fi indi lii lépp te lii lépp waroon naa mën a ñàkk ci réew mi mënoon naa mën a ñàkk ci réew mi léegi nag Adji Sarr mi ne dañ koo kat fu muy mujje kan mooy admissier Adji Sarr Adji Sarr mun ta dem dëj Aziz Diagne mënut a dem xew Adji Sarr du ngénte du gis ay mbokkam fu mu génn mi ngi nekk ak sécurité fu mu génn mi ngi nekk ak GNG day gestu di xool bañ ñu rey ko Adji Sarr fi mu toll ci risque dox kan moo koy administrer xanaa ngeen ñaan waa kër Ousmane Sonko yeeg Pastef ba xale yi wala Ousmane Sonko ngeen def conférence bu boros daane baal leen Adji Sarr administrer leen ko amul problème ñu doog koy jéggal mën a dox ay activité am yërëm naa ko de yërëm naa ko de en tout cas daal mi ngi noonu man ci dëgg lay dox waruñu ko woon a perdre leur temps di yàq ay activité am ci lu dul dara fii ku fi défendre Macky Sall ci gàcce nga ko défendre ku fi génn naan da ngay défendre ci gàcce nga ko teg parce que amu leen ndam gàcce ngeen am waa Ousmane Sonko ñoo am ndam ñoom ñoo ñoom ñoo am ndam ñoom ñoo yor tey victoire bi ku fi génn défendre Macky Sall ah naan ay dafa ñaana ak daa saraxoog dama ne la lu mën a doon ku fi génn défendre Macky Sall ci gàcce nga koy défendre parce que amuñu ndam ñun danoo toor ñële ñoo am ndam waa Pastef ak waa kër Ousmane Sonko wasalaam.